man de dama ñëw mbégte ànd ak sama waa collègue ensemble instrumental. man la maam Kodou Ndiaye dëkk Tëngéej nekk théâtre national Daniel Sorano. muy Sénégal xanaa fii kontaan rek tubaarkàlla fii àdduna fi tase te it nag tubaarkàlla macha allah kenn ku ne xam na ni Macky sàll liggéey na ndax ku dugg ci stade bi gis mbooloo mii gis artistes yi nga war a xam ne Macky liggéey na tubaarkàlla lu mu mën ren yàlla man déwén lu kopp tubaarkàlla yéen nit. ah xorom ngeen ci fi de waxaat ko fii toj rek xorom rek ngeen ci fi eh? ku togg fàtte du saf tubarkalla macha allah ah ñuy ñaan yàlla di julli ci yonent bi yal na yàlla yàggal lii rek mu sax tubarkalla ñuy dem di ñëw di jouer di way traditionnel man nag damay way traditionnel mais dinaa way gumbe nak, ndax tëngeej laa dëkk waaw bu ma woyloo gumbe rek damay woy gumbe foofa toj. dëkk na borom bàjjan bari. ah Abdoulaye Wade am na bàjjan ba ñu tuddee ko bés bi tey. waaw noonu la xanaa nag bég na ci tey tey bés la boo xam ne ñépp a ko rafetlu bés bu neex bés bu kenn dootul fàtte bés boo xamante ne activité la fii ci Sénégal te dootul fay Macky Sall nag def lu rafet ndax moom ku nekk xam na ni Abdoulaye Wade papaam la di léppam. te bëgg mënu la bañ mukk kon bu demee tey ba njukkalewaat ko stade bii tudde ko ko ah loolu dootul fay de ñun ñëpp rafetlu la nag. waaw dëgg lañun dañoo bokk ci Sénégal te it nag ñu ngi bay suñu waate ba léegi ñu ngi topp ci suñu yaay yi def ak ñoom nii rek ndax boo fekkee ki jiitu ki jiitu ci néeg bu lëndëm bu la nee toogal toogal te suñu yaay yi ñun dañ leen a talone dafu ci ñoom di xool ci ñoom. loolu la ñu bëgg suñu rakk yi ñoom it nañu xool ci ñun bu ñu xoolee duñ juum de. maa ngi nekkoon ak ñoom théâtre national dañoo soraan ba 1980 sama propre groupe dama sama bopp kon lii mooy aar

man de am naa mbégte moo xam ne suma ko am ndax bég bi ma bég ndax man dama bëgg fu ci loolu incha allah alhamdulilahi rabil alamin seen info tv eh, i jomde saful eh, muyu ɓuuram tu ni sall eh, déplacement yanji kanloña manji joɓe ta tañemon ndi jaat ko wombule kati stade ay balay aja Daaro Mbaye da leen may wowe nima kontan ko dundé xana contane rek ndax ñun amuñu lu dul suñu réew suñu réew lañu am lu ci bax duñu doy te ñun duñu magi barki demb waye magi demb lañu ak tay lolu moo tax ñu boole ñu ci li président Macky Sall liñu ko way ni ko jam rek la lambo jam rek la bëgg jam rek la tam jàmm rek la ñu bëgg te ñu tam jàmm rek la ñuy wax jàmm rek la wax. ndax daf noo def yaay soxnaam ma ne fay sàll sunu yaay ah, ñooy yaayam sunu goro ndax yëg la am ci ñun. looloo tax ma kontaan trop nee naa ko ca ndax moom barkal xam ngeen ko yéen a dëkk moom réew mi xam nañ ko góor gu am fulla la gu am fayda gu yërëm jigéen gu mën a yor jigéen mën a yor njabootam maa la ko wax ñoo moom

fay et ñaan nag yàlla yàlla guddal suñu fan may ñu wér may la ko may ko sa soxna et may ko gouvernement bi yëpp may ko opposition bi yëpp ba ñëpp nekk ci jàmm Macky daal kenn mënu koo fay man daal li ma koy sant mooy Macky laaw la cat Macky macha nit ku baax la ah kon foofa day toj barkalla macha allah ayaay ndaw rabbi lépp yee moom sekk njaay ak atu njaay abu demba baayu ma sekk njaay atu ma njaay ngoone abu demba baayu ma mati mu ko dumaar ak faa mu ko dumaar koña yaay mbay ay fanuur yaay xëy gay gam yaay alema fit din